rafetlu suñu ànd ak yéen ci biir Sunugal 24 mbokk yi asalaamaaleykum dal leen jàmm ci bile jotaayu xibaar ñu ànd ak jukki leen ponk ci gën a fës doore kooku roppalaan Air Sénégal bi nga xam ne moom la ñu dal di euh, taggatémbeel ni kii démb ca fa nga xam ne moo di aéroport international Nelson Mandela bu Praia la ko nag mu di benn xale bu góor bu wax ne dañoo dugal ab bomb ca boobule avion ba tax na ñu dal di ko fay tee nag ngir def ca lépp lu ca war saytu ko ba xam la mu doon wax dëgg la am de dañ ko yaatal ci biir xibaar yi wax Lat Diop ak kàddu yi mu yëkkati wala la mu def te dëppoowul ak li njiitum réewum Sénégal di santaane ci lu ñel wàllum emploi des jeunes moom Lat Diop nag dafa dal di dàqalu lu tolloog juróom fukk ak ñaari ndaw yoo xam ne ña nga doon liggéey ca LONASE ba noppi daal di koy remplacer ak ay ndawam yoo xam ne euh, fare ci moom ci langu politique ñu wax ci Ahmed Khalifa Niass ak kàddu yu rëy yi mu yëkkatee ci ca plateau ba mu doon amal ca Seneweb ginnaaw na ay wax yu ñu ko doon ŋàññi Ahmed Khalifa Niass àdduwaat na wax ci leneen lu gën a doy waar. ñu jeexale euh, li gën a fës ak tolluwaayu mbas mi ci biir réew mi bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ministère de la santé de l' action sociale amal tey ci samedi jéem ak ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru avril mbokk yi xarit yi lii lañ leen doon dëgtal ci li gën a fës ngeen taxelu bàkk bi jàll ñu faram fàcce ko. asalaamaaleykum mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyoo nañu leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi noonu la ñu koy dooree faram-fàccee ak roplaan Air Sénégal bi nga xam ne moom la ñu daal di tagga témbeel ni ki démb ci fa nga xam ne moo di aéroport international Nelson Mandela bu Praia li ko def nag mu di autorité capverdienne yi ginnaaw ay rumeur yu doon daw ne boobule roplaan ab bomb moo ca daal di nekk tax nag ñi nga xam ne ñoom ñooy yooyu les autorité jël ci seen ay matukaay ba fii ñuy waxe ak yéen roplaan googu xam ne moom moo di aéroport boobu lee ngir nag ñu saytu ko ginnaaw. li nga xam ne moom moo di magazine Cap Verdien bi di Santiago magazine moom moo daal di xamle lu ni mel ni kii démb ci àjjuma ji foofu nag mujje woon naa indi pëccëxoo bu méttee métti bu fa am ñoom ñu rawale ji la nga xam ne moom moo di passager yi bàyyi fa roppalaan nga ngir mën koo saytu ba xam la ñu tey wax dëgg la am déet ñu des ci mbiru roppalaan googu ak nga xam ne moom moo taax loolu le coow dal di am mu di Amadou Lamine Mbeng mi nga xam ne moom moo waroon embarqué ci boobu le dem Faye ginnaaw si nag la dal di wax ne roppalaan googu dafa am bomb mu tàmbalee jur coow waaye nag li nga xam ne moom moo di ay kàddoom moom Amadou Lamine Mbeng moomu nee na daf doon foo ca ba mu koy wax waaye foom googu mën na ko jural ay jafe-jafe ginnaaw ba tey jamono ji moom mi ngi ci loxoy takk der yi ngir nag ñu gën a wëyal la nga xam ni moom moo di boobule enquête ngir kàddu yëmu yëkkati te mu mën a indi jafe-jafe ci réew mii di Sénégal ana ci wan anam la ko teg ki nga xam ne ay kaddoom fa mu ko teg daal dina koy natt ba mu doy ko mu di Pape Mata jàpp chroniqueur ci Sen TV ni ki démb ci Grand Plateau ak seenub invité di Bougane Gueye Dany Pape Matar ay samp ay laaj jëmale ko ci Bougane Gueye Dany te askan wi doon laaj kàddu yi Pape yi ana naka la ko mën a yëkkatee jëmale ko ci njiitul gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany laaj ba njëkk bu Pape Matar samp mu ne Bougane Gueye Bougane Gueye Dany sam njàng soriwul maanaam xamul dara ba noppi euh, bëgg a yor am réew bu mu ca noppee wax na ko ne ko yow tey ji war est-ce que war naa mën a dem ci sénégalais yi nag ngir jëli ji seenu naqar wala seenu mettit ana fan la ko yóbbu du ministre du député te bu booba euh, daanaka la mu doon def amul njariñ ba noppi ne ko amul li nga xam ne moom moo di expérience wala expertise ngir yor am réew moom Pape Matar ba mu ca noppee itam euh, dal na ci kaw njiitu lu gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany ne ko am nga xaalis am ngay waaye nag waroo mën a tax nga yorum réew ndax dafa gis ne day toppandoo njiitum réewum Sénégal lu mu wàqi rek mu suul mu muy kàddu yi Pa Matar Gueye jëmale ko ci njiitul gëm sa bopp laat Diop di directeur général bu lonaas ak jëf ji mu jëf te ñenn di ko ñaawlu ginnaaw kàddu njiitum réewum Sénégal ci jàppale ndaw ñi ci biir réew mi ci lu ñeel wàllum xëy mu mel ni njiitum réewum Sénégal la mu wax ak la Lat Diop jëfe wuute na ginnaaw bu mu dàqee lu tollook juróom fukki ndaw yu doon liggéey ca LONASE ak ñaar te la ko sabab mu di e, bëggoon faa wuutal ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay ndawam yoo muy àndal ci langu politique gu nekk ca Guédiawaye te ñi nga xam ne ñoom la dàq ñoom ñëpp CDI yi la ñu am maanaam contrat e, durée indéterminée waaye nag e, ci ñaar yooyu euh, jëlaat na ci fanweeri nit ak juróom-ñeent fukki nit ak ñett jamono ji ñoo nekk ci chômage bu méttee métti xamuñu fu ñu jëm di fësal li nga xam ne moom moo di seenu naqar ba fësee ne ci sax nag jóg yu woote wàllu ki xamle lu ni mel di nga xa ki xam ne moo yor seenu kàddu di Bouna Dioum kàdduy Ahmed Khalifa Niass lu gémmiñ mënul wax ay nopp mënu ko dégg ki nga xam ne saa su waxee rek nit ñi ne waxati na ginnaaw wax yim fi wax ci fan yi ñu weesu ne soxnaas jàmbur mën nañ ko ëmbal tudd doom ji dellu na wax leneen loo xam ne jàpp nañu nekk moo gën a doy waat Seneweb ginnaaw bu ñu sampee ab laaj jëmale ko ci ndax ak ki nga xam ne takkagoo ko ndax mën nga séq ak moom maanaam sëy moom Ahmed xalifa Niass daal dina koy daganal ne jàng na ko te lu mën a nekk la ndaxte eh, di labat eh, di sëy bokk na ci li nga xam ne moom moo di eh, takk ñu wax ci leneen lu doy waar li nga xam ne ñu ngi koy tàmbali di gën a nemeeku ci réewum Sénégal mu di accident yu méttee métti yi nga xam ne ay nit yu bari dañ ciy ñàkk seen bakkan ci euh, semaine bi nga xam ne moom la ñu génn am na ci accident bu am boo xam ne juróom nit ñàkk nañu ci seen bakkan bi yees te juróomi nit ñàkk ci seen bakkan mi ngi am ca diggante noto guy jama ak fa nga xam ne moom moo di Mboro juróomi nit ñàkk ci seen bakkan ci saase benn oto bu doon yóbbu ay nit bu dajee ak li nga xam ne moom moo di benn camion ñi ci ñàkk seen bakkan nag ñoom ay jaaykat lañu woon ca marché bu noto guy jama dañu doon ñibbi ci lañu defee li nga xam ne moom moo di boobu boobule accident ñoom juróom ñëpp ñàkk ci seen bakkan ci saa see lu tollook ñeenti nit am ci ay gaañu gaañu yu métti métti ba jamono ji ñu ngi ca Sowétas ñu dem ca Grand Yoff eh, xeexub ñaari taalibe bu mujjee jur kenn ku ca faatu kenn ki nga xam ne moo faatu di Alpha Diallo am fukki at ak ñett ak ki nga xam ne moom moo di moroomu taalibeem bi di Aljuma Diallo moom la doon xeexal mu daal di koy jam nag mu faatu ci saase ab néewam daal di nañu koy yóbbu ca hôpital Idrissa Pouye bi nekkee ca Grand maanaam eh, fa nga xam ne moom moo nekkoon CTO ki nga xam ne moom moo def jëf jooju itam ba jam moroomu taalibeem jamono ji mu ngi ci loxoy eh, takk der ci ñàkkuk li nga xam ne moom moo di gasoil wala essence ci réewum Sénégal mi ngi mel ni tulleeg maale tax na chauffeur yi daal dina am njàqare ci diróob ñetti fan jàpp ñeent yoo xam ne euh, ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay ci station yi dañoo bankoon seen ay loxo te ko ñeel mu di ñàkk ak jugoo gi am ci seen biir ngeen ña jàpp nañu ne employé dañ leen a war a embauché ndaxte nañuy liggéeye du loo xam ne lu jaar yoon la ñeneen ña ca des itam di euh, revendiquer leneen waaye mu mel ne ak jubo mi ngi tàmbali di am ci seen biir ginnaaw ñàkkuk euh, gasoil li nga xam ne ñetti fan yoo xam ne euh, chauffeur yi ñi ngi ko doon joytu tax na ministre bi ñu denk wàllum pétrole dal dinay waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk loolu di association yooyu ba tax na juboo dal dina ci am ni ki démb ginnaaw bu ñu seqee waxtaan waaye ci àllarba bi ñu dëgmal fële ca la ñu fas yéene amalaat beneen dajo bi gën a confirmer li nga xam ne moom mooy yooyu le kàddu ngir ñu delluwaat bum ca mboy mboy ba ñu wax ci li nga xam ne moo xew ca Masalikul Jinaan ni ki démb lu doy loo xam ne ñetti nit yoo xam ne daal dinañu fay sukk euh, jébbalu euh, ba noppi itam daal di tuub jëmale seen bopp ci yoonal Seydina Mohamed mu di ñetti chrétien yoo xam ne dañoo daal di tuub ni ki démb mu doon loo xam ne itam geste bu ñu ko fekkee rafetlu la ba noppi daal di leen di ñaanal ca ka leen tuubal itam tàllal leen ay loxoom ngir jëmale leen ci yoonu lislaam kenn ku ci nekk daal dinay soppi tur nga yoroon dal di lay dippe weneen tur woo xam ne ni ràññee nañu ko ci yoonu murit mu di Serigne Fallou eh, Mouhamed ak ki nga xam ne moom moo di Maam Jaara ginnaaw bu ñu doonee ñaari góor ak kenn ku jigéen Pauline Gueye di soxnaas euh, Gana Gueye euh, ginnaaw seenub ànd ñoom ñaar te ñu doon wax nekk Gana Gueye ni mu gisee soxnaam si ba takk ko moom Pauline daal dina ciy dellu siwaat nag ngir indi ci ay leeral ci benn interview bu mu doon amal ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay benn site bu nekk ca Paris révélation yi nga xam ne Pauline moom mu def na ko ci digganteem ak Gana Gueye naka la ñu ba yàlla def tey mu jël ko soxna ci atum 2011 la tase ci Facebook Gana Gueye demandé ko li nga xam ne moom moo di ami mu accepté ko ba noppi ca la message nag tàmbali ba fi ñuy waxee ak yéen ni ci la ko jëlee soxna waaye ca début ba jëlu ko woon lu sérieux dafa jàppoon nekk rek xaritam la ci atum 2011 ba 2014 ci la ñu tàmbali nag dundu relation bu sérieux ba yàlla def mu jël ko euh, soxna ñu jeexale xibaar yi ak tolluwaayu mbas mi ci biir réew mi bi ñu sukkandikoo ci communiqué bi ministère de la santé de l' action sociale amal tey ci euh, samedi yem ak ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru avril ci test yu ñu jot a def juróom benn fukki nit ñoo ci dellu si am doomu jàngoro bi ñaari nit ñaan kakaat nañu seenu bakkan dolleeku ci lim ba ñàkkoon seen bakkan ñaar fukki nit ak juróom ñaar fukki nit ak juróom-ñeent ci ñi ñu entré woon ci hôpitaux yi wér nañu ba ñibbi seeni kër juróom-ñeenti nit ñu ngi Sowétas tax ñiy sàmmonteeg wér gu yaramu doomu aadama yi